na magistrat yooyu tey du ma seen morom bu ñu këlkëlee ndax wax naa li may wax man tudduma benn yoon magistrat tudduma justice sénégalaise magistrat yi dama cee am ay bopp am ci ay xarit nekk ab sénégalais amal ñoom relation yu baax wax naa ba bàyyi tudduma am magistrat tudd condition de pension yi nekk Sénégal laa dénoncé baaxul lu ñaaw la la erreur ay def nañu ay njaaxu damaa nekkoon ci yoon maa ngi Maroc nekkuma Sénégal mais bu ma ñëwee danañ topp mbir mi dama ni UMS laa ni bu dee da dañu dañoo am lu ñuy wax nañu dem wax ko ki leen saaga man saagawuma magistrat xulowuma ak magistrat awuma problème ak benn magistrat jàmm laa seq ñoom wax naa ko waxati ko wax ko posté ko sama page Facebook loolu doy na sëkk mais bu ma kenn di woo di ma wax ni magistrat ak ci justice sénégalaise justice sénégalaise ci laa nekk ci laa bokk ñun li ñu bind mais moom moo ko wax magistrat ñun inventé ko tooguñ fu ñu neex bind ko moom moo or moo dugg mm, prison wu Diourbel génn fa ne da doon joxe ay don dal ci kaw magistrature bi ñun li ñu bind wax dëgg xanaa kay dañoo weex du moom la enquête bind moom la observateur bind deuxièmement mais Moustapha Cissé Lo li mu wax mu ngi ci ab audio audio bi mu ngi fi Actusen point com lii lay war a solu mais waa réew mi ñi bëgg a xam ndax source a day kàcc wala ndax li Moustapha Cissé Lo a solu dem ci Africell.com danañ fa fekk audio bi loolu kay amul laam-laame lenn lañ bëgg a xamal Moustapha Cissé Lo ñaari salaamaaleykum du ñu ko dindi si li ñu bind il faut que mu leer mu clair ci bopp nit ñëpp dindi wun si dara retiré wun si dara wàññi wun si dara Moustapha Cissé bu fekkee ne moom justice su Sénégal da moom comme na moomee woon ganaar yam daan jaay bu boobaa na xam fu ko neex na fa dem fu ñu yóbbu ña fay xaar ñaari salaamaaleykum du ko am defuñu defuñu dara la mu wax rek lañ jël dugal ñun defuñ sax commentaire waaw waaw la mu wax nag man nga ko audio ba buñ demee si juge bi juge bi dana xam ndax Moustapha Cissé Lo ñun dañ ko diffamé wala li ñu wax li ñu bind moom ko wax loolu kay dana leer